tey nak dama am mbecté ah li nga xamante mom lañ doon waaj ay wéri weer yalla def ñu ko defal ndaxte eh, daw fi la ñëwoon wante ren nekkoon na lu metti ngir Jericho mëna gis jour depuis le 10 mom moy arrivé bi 10 avril 2024 ñu ngi fi ñu ngi fi di wax di jàngale di faj nit ñi ci côté santé di Nous xalé yi di def ay culte té lepp ko ndax yi 2000 personnes ñu ngi fi it dañ doon def ay marche marche pour Jésus Nous bir dëkk bi di woyal di marche de prière di ñaanal nit kon ci mun nañ wax ne ñu ngi sant di sant Yesu Krista di sant jàngu bi te it di sant itam autorité ndax li bu amé autorité itam def nañ ci sen loxo ci naka muy préfet bi mu nga xamante itam maire bi muy conseil départemental bi ñom ñep ñom ñoo bolé sen doole bolé li nga xamante ne moy sen am-am ubil ñu buntu fu ñuñ motax bi xalé yi yegsee bëri woon nañ wante yalla def na si jàmm kenn gaañuwut kenn amul lu ko naqar ñuy way di sant borom bi di def ay ñaan pour Sénégal kon buñ ko xolé dinañ wax né buñu défé bilan bi mun nañ gis né wax dëgg yalla wuyusi nañu am na ñu bëri ño xamante ci ginaaw buñu fajo ci yaram bi ba paré ñëw nañu ñu ñaanal leen ci baatin dàq ay rab dàq ay jine dàq seytaane yi nekkoon si ñoom te it amoon na leneen lu ñu def muy lan muy de jàngale nañ te am nañu tuub ci borom bi démb sax am na ñoo xamante ci yeneen diine lañ bokkoon mais ñëw nañu jéebalu ci borom bi kon gis nañu ne borom bi ci boppam vraiment liggéey na fi ci gone yi ak ci ñëpp waa njaayum ndox bi moom euh, comme niñ koy defee à à tout moment njaay bi moom dañ ciy gis suñu bopp bu baax a baax vraiment saay bu ñuy ñëwee jaay bi day dox euh, gars yi dañuy naan ndox bi ndax boo gisee affaire bi dafa xaw a tàng kon njaay bi euh, ça va sant yàlla. man nag à chaque fois bu may ñëw Jéricho li may njëkk a li nekk sama comme premier bi mooy ma jotee ci borom bi mais ci ginnaaw loolu tamit comme yàlla daf ma baaxale ci business man ci jaay bi laay gën a focaliser wu. bu ma ñëwee tey moom attente yi ma amone vraiment euh, euh, fekk si nañ ma jot naa ci sante yalla bu baax a baax. li ma di wax nag euh, euh ñu gëna jappanu ci borom bi ñu gëna euh sax ci borom bi ndax borom bi lepp loy ut rek boko ñëwé ci borom bi da ko fi fekk muy jamm muy wër muy même business bu ñuy def yëpp ci borom bi daal lay lay lawé Jericho djeg jam ca kaw ca kanam ci lu baax. impact fait Jericho ren.

yam jeriko ka ref o njiriñ jeriko ka taxa i ndaaw we i mbageerna o ndaaw ta ref euh, we andoona yee ke da le peuple non atteint ndax i ndef wa andoona yee xan i ndaawa den ndax ndaaw ke refna yegil mbaax ne jeriko xa jeunesse ne a mbara soutenir oxu andoona yee ko ref na jangu e, e, évangélique fe Sénégal wara o dam jeriko jeg jam ndax ta ref ka andoona yee me andoona yee i mbadee ma i mbaag o ma ndax yegil mbaax ne a moƴo waag o no saax in Sénégal ñu ngi sant yàlla Ah, gis nañu ne dérèglement bi jaar na yoon ndax ñëpp ñëw nañu en masse Jéricho bi bari na ay nit te programme bi jaar na yoon nit yi lekk nañu naan nañu faju nañu te loolu lañu ñu bëggoon ci Jéricho déglu nañu kaddu yàlla bi ndax dañoo bëggoon itam képp ku fi ñëw nga faju nga naan nga déglu kaddu yàlla ji nekk dem ci jàmm vraiment loolu la ñu namoon ci Jéricho gis nañu yàlla dimbali nañu ba loolu mën na antu na boo ñu gi gërëm yàlla bu baax ci loolu. jeunesse évangélique bi Sénégal mën nañoo lancer message bi comme comme comme ni ko gis ci thème bi euh, ak la pour Sénégal jubóo loolu itam dafa am solo lool ndax jàmm mënta am sans Yeesu Krista te Yeesu Krista dafa indi jàmm dafa man may borom jàmm ji damay may sama jàmm bokkul ak ni ko àdduna si di maye moo tax li may ñaan mooy. képp ku nekk évangélique képp ku nekk protestant nga jiw jàmm boobu nga xamante ne jàmm boobu la yéesu indi yeesu dafa indi jàmm ci njaboot bi yeesu dafa indi jàmm ci Sénégal loolu yëpp ñun mën nañ cee jàpp surtout jeunesse évangélique bi kenn ku ne nga xam ne ku jiw jàmm nga war a doon comme ni ko yeesu Christa di ko di di ko digle. Jéricho jeg jàmm. Alléluia. Thank you.